bu fekkente ne gerte gun doon pëtam la yaakaar naa ni xamul benn yoon Fede de mooy footballkat bi nga xam ne ci Ligue des ci semaine bi bit bu rafet bit ba mu ca dugal mooy bit bi gën a cuqur mbuuj loolee bokk nag ci match bi Real war a mën a football ñu ko cay xaar bu 18h30 jote heure Espagne match boobee ma bàyyiloo leen ko xel bàyyiloo leen xel asalaamualeykum gi di nuyoo bu sell boo xam ni jagleel naa leen ko di ñaan ngeen fay ma yal na yàlla defal leen jàmm sàkku ci yéen abonnement yow mi door a ñëw bu ko defee nag ñu ànd continuer dem ci information yu wér te na koo doore sax équipe bii di merengue yi gone yooyu ay mooy weex la ni sol tey ji nag danañu football ak li nga xam ne daanaka mooy équipe bi la di euh, Mallorca match boobee nag Real Madrid def na déplacement ba àgg fële nga xam ne mooy dëkk bële di Mallorca foofee nag ñu war faa mën a euh, laal les match bu am solo di fàttali tamit euh, Barcelone danañ ci ñëw ci kanam ndax moom it day génn vingt et une heure heure Espagne dem fële ca li lee nga xam ne daanaka mooy Cadix daje fa ak moom match bu am solo gars yi décalage de heure bi ñaari waxtu la bu ñu nee leen heure ca Barcelone kon fi mu toll mënees nanoo jàpp ni Cadiz ak Barcelone match boobee mi ngi am euh, fii ci Europe Sénégal 19h Real Madrid nag ma jàpp ni 16h30 ndax décalage 2 heures de temps ngay am foofu. kon ñu àndandoo bàyyi ko xel bàyyi xel gone gii nag moom ngeen gis ko ab Fede Valverde la tudd milieu terrain la boo xam ni jàmbaar la dëgg nag waaye nag daa dugal bit boo xam ni. ci diggante Real Madrid ak di Manchester City loole nekk soog boo xam ne bu ñëpp doon xaal soog ci biir soog yi la nag waaye nag loolee du dara ci am ceebo mi nga xam ne équipe bii di war nañ leen a xaar bu baax a baax fële nga xam ne moo nekk Angleterre match boobee àllarba bii ñu dëgmal lay am euh, bu 19h jotee ci Canal Plus na ko ñëpp bàyyi xel ndax loola yaakaar naa ni lu am solo la beneen international di Abdou Diallo ngeen xam ko muy ab défenseur maanaam boo xam ne excentré gauche mën na fo football mën a football latéral mën a football lii di stoppeur moom moomee nag ab équipe am fële ca Émirats arabes unis moom Abdou Diallo euh, jël na li nga xam ne mooy super li nga xam ne daanaka moo nekk fële ca euh, maanaam. Ibrahima Arab Ani digganteem ak équipe bi la nga xam ne mooy Al euh, Sarjaax loole nag nekk loo xam ne loo am am solo la ci wàllu parcours bu njëkk nag mu laal ab coupe kon ñu ñaanal ko coupe boobee jikko